lu jëm ci wàllu dëkk bi yàlla dafa dogal euh, dëkk bi moom amuñu lu dul moom ndax suñ ko génnoon duñu xam feneen fu muy dem moo tax mësuñoo génne sunu loxo ci dëkk bi te fas yéenewuñ ko itam jamono bii may wax yow équipe bi nga xamante ne moo yore dëkk bi muy équipe municipale bi suñu borom dogal na euh, maa ngi ci biir yaakaar naa la nga xam ne jàpp naa ne war na war naa ko faa def lépp ah du ma ne def naa fa lépp waaye def naa fa lu bari ndax lépp loo xamante ni gis naa ne jooy jooytuy askan wi la bu ñu àggee ci conseil ba wax naa ko fa dénoncé naa ko xaj na yu am na ci yoo xamante ni saafaru na waaye xaj na am na ci yoo xam ne saafaruwut bi nga xam ne nag moo ma ci gën a marqué gën ma cee neex mooy lu jëm ci wàllu daara yi ndax man daara daf maa mas a ndax boo seetloo yàgg nañ koo ànd. surne hmm. taalibe yi moom <laughs> yàgg na Eh, sunu borom dogal na eh, ci waaw ci ci yàllaa ko yàllaa ko def waaye ci sunu borom ci man la ko jaarale mhm. ñu taxawal ko mu neex ñu torop ñu nekk ci at mu jot ba équipe bii nga xamante ni ñëw na tey muy équipe bu bees bi te sëñ Abdou Mbacke Ndaw di maire bi bi mu ñëwee gis na ko rafetlu ko ne ma danañu ànd def doxal ko te yaakaar naa mi ngi koy doxal lépp daal mhm. loo xam ne gis naa ne war nañ koo def ci dëkk bi bu ma demee danaa ko fa lépp lu may gis ñu wax ko ma jàpp na ni lii leerut sama xel wala leerul ci xelu askan wi danaa taxaw wax ko ca kaw benn ñu andi ci ay jindi mu yaay ma ma noppi wala ñu indi ci ay jëndi yayu ma ma konne samay gëstu ah en tout cas daal danañ ci ne daal ñun daal da ngeen xam ne daal mbàkke gi yëpp mbàkke gi yëpp ci élection 2022 yi moom danañu ci dégg mais mais mais kan mais candidat yu bëri ci am na fi njëriñ tamit waaw xam nga bu dee lu mel ni élection locale moom euh, képp ku dëkk ci dëkk bi te di fi watee rek euh, ñu boole suñuy mëbét boole suñuy gis-gis jiital intérêt Mbàkke te bañ a jiital suñu intérêt bopp taxawal daal loo xamante ni daal équipe boo xam ne daal bu fa nekkee Mbàkke la fay nekkal kon daal jàpp naa ne loolu kon daal la waaji waxoon dootoo dootoo wala fas yéene too ànd ak kenn wala dootoo àndatee kenn aha kay dàquma loolu hmm. ndax man damaa jëm ne damaa jàpp ne maanaam amul benn nit bu mën a gañe benn danaa renoncer sama candidature bu ko defee jàppale ko ñu ànd defar Mbàkke